salaamaaleykum wa rahmatulah man la Alé Thiam euh, responsable benn Bokk Yaakaar fii ci commune u Njaañ euh, tey nag dañoo ñëwoon ci ñaan gu doon defal suñu wayjur nga xam ne moom ci moom def na ko fukki at ak benn doo ko génn àdduna moom itam bi mu génnee àdduna ak léegi ñu di ko defal ñaan gi mu toll ci juróom-ñetti at ci ren euh, nga xamante ne bii ne way dawlu yëpp la ci ñaanal. wàccee ci luy tolloog ay téeméeri kaamil di ci ñaanal way dawlu yi euh, Serigne Diagne Ndiaga di ko jiite euh, ñu di ko nuyu bu baax muy sëriñ Amar Diagne ak euh, Serigne Ndiaga Diagne ak famille El Hadji Massamba Thiam bi yëpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor wu ne ñu di ci wàccee kaamil di ñaanal way dawlu yi. waaw yàlla dogaloon nag ñuy sant waa Njaañ gépp ci ñaan gi nga xam ne chaque année ñu di ci teew. Euh, di ci ñaanal way dawlu yi euh, ñu di ci profité waale nag di sant population wu Njaañ gi yëpp ndax comme dañoo jiital ci benn bokk yaakaar ñu am luñ génn keroog dimanche muy élection yàlla dogal ñu demoon ci ak suñuy nattaangoo am ñoo xam ne ñoo ci gagné vraiment muy élection yu transparent élection yu yu rafet yoo xam ne benn coow amu ci amul xeex amul xulo vraiment ñu di ci félicité ñi nga xam ne dañoo woteel benn Bokk Yaakaar gi yëpp nga xam ne suñuy militants yu fidèle lañ fépp foo xam ne jëm nañ fa rek ànd nañ ci ak ñun kon dañ leen di félicité bu baax suñ waxee ku ne ki nga xam ne moo fi jiite waa PS ki nga xam ne moo fi jiite moo fi jiite AFP ak ki nga xam ne moo fi jiiteel yeesal ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant itam responsable benn Bokk Yaakaar yi nga xam ne ay APR lañ bu baax a baax a baax a baax di sant itam wax dëgg yàlla mu le maire mi nga xamante ne bii ne bokkoon nañ élection bi mu bokkoon ci parti Khalifa Sall di sant itam wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoo fi taxoon jomaay président yàlla dogal ñu jël ndam li ñu di leen di félicité bu baax di leen ñaanal yàlla li nga xam ne lañ ci jublu rek yàlla nañ suñu borom defal vraiment itam di félicité président Macky Sall ndax ànd nañoo ak moom 12 ans. yoo xam ne ci àndin wu rafet àndin wu teey lépp loo xam ne suñ cër la ci dëkk bi lam ci man ak lam ci manul yëpp defal nañu ko kon nag dañ koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla fa mu jëm yàlla suñu borom dolli sutura di ñaanal itam président Diomaye mi nga xamante ne bi ne jël na réew mi yàlla defal ko ci yan bi oyof lool ba moom itam yéene bu mu ci bëgg rek suñu borom defal ko ko vraiment ndax ñoom ñëpp dañoo bokkoon luñ bëgg rek defar Sénégal rek moo leen ñor comme yàlla jox na ko nag yàlla ko ci yàlla dimbale yàlla taxawu ko ci ba am ci lu kawe njortam. waaw appel bi ñuy lancé rek mooy benn ci population wu Njaañ ñu xam ne réew mooy doxe noonu euh, kii day yor ba jeexal nag keneen yor kon niñ nga xam ne jàppale woon nañ ko doon ko ñaanal itam président Macky sàll nañ ko ñaanal président Diomaye ndax nag ñun ñëpp dañoo nekk ci gaal gi. comme dañoo nekk ci gaal gi rek jàmm rek la gaal gi war a am ndax ñu ngi ci biir gaal gi kon ñu ngi lancé population wu Sénégal gi yëpp ñu ànd ak dal ànd ak jéem a liggéey nag loo xamante ne bii ne mooy defar réew mi ndax am réew kat du président moo koy defar ña nekk ci réew mi ñoo koy defar président jàppale leen ci loolu daal moo ci doon suñuy kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant yi ndax vraiment waa kër El ma samba Thiam yi nga xam ne ñooy jiite ñaan gi muy suñu xalifa muy Cheikh Thiam ak ku ñuy wax Ibrahima Thiam ndax wax dëgg yàlla ñoom ñooy taxawu ñaan gi chaque année lépp loo xam ne war na ci rek ñi ngi ko ciy def ñu ngi sant bu baax di leen gërëm di sant population wu yëpp di sant itam waa Leeral TV gi nga xam ne depuis que campagne ba léegi ñun ak ñoom ñooy ànd def naa lépp loo xam ne ñu ngi koy def rek ñoom ñoo ñu ko couvriral kon vraiment dañ leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaanal di leen ñaanal yàlla vraiment yëf yi gën a saawaan baawaan di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah